asalaamaaleykum daleen ak jàmm mbokk internet bu Buzz e TV dossier bi nga xam ne moo di dossier Adji Sarr ak président wax que ne date bi nga xam ne moom lañu war a jàpp war ko àtte date bi dañ ko nar a yóbbu si mois bi nga xam ne mooy mois Ramadan maanaam dañuy dem ba dugg si biir koor gi nga xam ne booba Sénégalais yi ñu bëree bëri duñu tal li nga xam ne moo di yenn si actualité yi seen bopp la ñuy tal ak koor gi xiif ngi gis ni mu méttee boobaa nag kenn du génn wala Zane Ba di si bàyyi sa xel lu mel nag la ñu dégg si yenn si sénégalais di ko wax mu nekk mbir mu doy waar bu amee mais nag loolu jàpp nañ ne yi conscience nañ ba nga xam ne lu mel noonu moom du leen teree maanaam euh, def li nga xam ne bëgg nañ ko def euh, muy euh, ànd ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko gunge ko buy dem. Euh, ba buy retour ñu ànd moom xool li nga xam ne yoon dogal na ko si boobule bés muy diggante moom ak ki nga xam ne moo di Adji Sarr. maanaam gars yi moom jàppaguñ datu procès datu procès bi na jàpp datu procès bi la le rek waaw le nangam rek. léegi naa ngi di wax naa ne du génn ci mois de mois de mois de mars quoi fii mois de mars du ko génn mais de toute façon daal nañ ko jàpp ñoom mois ci le euh, mais nañ ñu mars fii deux mars oui weer ci biir weer koor gi la fekk ci weer koor gi xam nga boobu heure bu Sénégalais dañuy sonn nañ jàpp bis boobu. waaw nañ ko jàpp bis ba xool xool ba xam lan mooy xew bu dee am na fit quoi bu dee Macky Sall nit ku am fit la jàpp naa ni nit ku am fit la war doon quoi Macky Sall